news mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defaree saa su ci jàngat làmb nag ñu ànd ci ak Papa saw tey nag ñu ngi ko fekk Olympique Club ñu gis ko ak ki nga xamante ne mooy Eric Favre yooyu yëpp dinañ ci waxtaan waaye jàngat bi tey dañuy tàmbale ci combat bi nga xamante ne moo dox ci diggante Pape Ndoye ak xale bi di Thiatou Daouda Fall mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la combat xale la examen la boo xamante ni ñaari xale yi ku ci nekk am na ci solo ci ñoom ñaar beneen bi dinañ ñëw encore ak Papa Sow mu tereteel ñu combat bi nga xamante ne moo dox ci diggante Birima bu ñu waxee Birima ñëpp xam nañ ni mooy Jackson muy bu xale bëre xale boo xamante ne nag yaakaar naa ni moom moo ko yar ci la keppaaram euh, ànd ak moom ci entraînement lu bare bare bare ñu yàgg a bokk écurie Faye écurie Fass muy lagros Rose ginnaaw loolu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet su ko defee ñëweel waxtaan maa lay nuyu baax. bàyyi ji li ñu ngi lay fay di nuyu mbokk internet Jambaar News yëpp di jaajëfal ñëpp jox ku nekk loxo fa nga nekkoon nag euh, di wax ne tey suñu daje fii daje partenariat ñu ne Eric Favre xam naa di leen ci ñëw bu ñu defee jàngat làmb ba pare man daal maa ngi nuyu. amateur jàngat làmb yëpp téléspectateur jàngat làmb yëpp dañuy wax ni ñoo doon tey pour ci benn week-end bu neex a neex bu nekk sunu kanam mu ñaari combat yoo xamante ni euh, ñaari magarak yu bokk week-end bu ñuy bëre ak ñaari doomu nday yu bokk week bu ñuy bëre mu nekk kon derby Guédiawaye Fass Guédiawaye Fass nag daa mës daa mës a daa mës a neex waaye nag ma bàyyi la nga ubbi waaw. macha allah fi may njëkkee mooy ñaari magarak yuy bëre loolu dinañ ci ñëw. ndax yaakaar naa ne am na ñu mu daal ci seeni i carrière est-ce que bokk nga ci. waaw mos naa bokk ak Tafa benn journée sax. waxuma la week-end sax mais benn journée. may bëre ak Zos moom muy bëre ak euh, Kaw Cissé waaw. Ah, benn victoire benn défaite moo amoon keroog. ah mais noonu laa moom du si dara. noonu mën nañu bokk benn jour bëri loolu du si dara moom loolu du si dara. kër gi du ah dina neex kañ. Ah, victoire da ngeen feetu. li doon mooy ñaar ñëpp daanu waaw lu léegi bu ñaar xam nga sport sport moom foo la dëgg la dañuy defee tiiru lépp mais à part ça nag foo li garaaw mooy yéen daal ñëpp ngeen daanu day gën a métti mais bu kenn daane rek dañuy fàtte euh, naqar bi dem yëpp def ko bànneex ñu bégee mhm. macha allah nak nag tey fii ñu la fekk xam naa fa laay njëkkee sax parce que sénégalais yi ñu bëree bëri dinañ ne Djily ak Papa Sow fi ñu nekk fan mais ñu ngi olympique tey ñu ñëw fekk la yéen ak Eric Favre ngeen am benn collaboration man lima ma bëgg a xam mooy soit làmb combat royal bi da ngeen ko jaay Eric Favre dengan ngeen a ànd ak moom pour liggéey wala lan mo ci xew. Euh, tey ngi fi olympique club doon def conférence de presse bi nga xamante ni moo ci festival Eric Favre.

loolu day gën a neex Eric sport santé la woote ñun woote na naam sport santé euh, ak culture moom bu ci doole lépp nag day nekk loo xamante nii dafay jàppale jeunesse bi day jàppale population sénégalaise bi yëpp quoi tax na tey ñu nag Eric dañoo am signé euh, accord boo xamante nii c'est amical Eric waxul ñaata la ñun waxuñu ko ñaata la dunoo ñëw ñu bokk li ñu bëgg-bëgg te dunoo bëgg a jëlee sport ak culture fu mu woon jéem ko jéggli benn palier moo ñu boole Eric ñun am na lu ñu mën Eric am na lu mu mën bu ñu boolee doole Eric ak suñu doole rek dinañ dinañ dinañ bégal jeunesse sénégalaise bi quoi loolu moo ñu tax signé ak Eric tey tey. ah ben non gars yi xam nga gars yi sénégalais moom moo mën a wax rek quoi sénégalais moo mën a wax rek moo mën a wax rek mais bon ñun Eric daf fekk ñu teg làmb te it ñaan yàlla suñu ànd gën a continuer it bu fi jugee tamit dañuy continuer waay tëgg làmb incha allah rabbi amul lu ñu bi ñu taxawal combat bi <laughs> ne ko dañoo yaakaar Eric pour taxawal combat bi Eric dafa ñëw am lu mu apporté lu mu mën apporté lamb ñëpp gis nañ ko daaw drapeau chef de l'État yi combat ak Bombardier et tant d' autres événements yi muy def nga xam kii wàll événementiel da ci da ko mën quoi da ko am expérience xam ko pourquoi pas duñ ànd ak moom loolu rek moo ñu solo loolu benn parenthèse la woon rek ñu ñëw nag ci daj dëpp gi ku ne xam na ni caatu daaw de Fall moom moo war a bëreek xale bi di Pape Ndoye te ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ne ay xale lañ yoo xamante ne ci kaw dañ leen a soxla te ñoom ñaar ñëpp lañ soxla mais état de forme ñaari xale yi bi nga leen gisee seen open press ñu jaayante sànneeku filaale def lu leen neex lan nga ko gisee. <laughs> ah macha allah ñi ngi jëm ci weekend bu neex a neex a neex a ndax ndax euh, boo nee caat Daara Fall rek Daara Fall saa son kuy Daara Fall ñu ne benn ancien mbër la boo xamante ne nii na yàlla seral ay yaxam. bi ma laajtee Daara Fall man sama papa laa ko laaj mu ne mbër bu mënoon xeex la mbër bu ñemee woon la nag mën a bëreet loolu nag xat nag loolu laa loolu laa déggoon ci moom loolu laa déggoon ci moom mu jógee ci loolu moom mu am magam boo xamante ne dafa newoon ci làmb ñu ko wax les euh, def ay preuve am tey moom bu ñu ñëwee topp ci tànk yooyu rek lu mu defee du ñu bett muy xale bu mën a bëre xale bu régulier ci ay entraînement chaque combat boo gisee rek day dox jéego. waaw ah, mi ngi màgg quoi mais nag mi ngi bëri si mi ñëw di war a bëri si nag combat bu jafe nag waaw. mi ngi bëri Papa Ndoye moo ko mag Papa Ndoye moo ko ëpp te bu dee doole su ma juumulee su ma juumulee man Papa moo koy sàcc doole su ma juumulee waxuma la entraînement physique doole laa wax ma am am force ak euh, les ñaar la ñaar ute. force ak physique ñaar la mën nga am physiquement nga bien mais nga fe nga am kii bi quoi xam ne laa ko mën expliquer ba nga comprendre ko maanaam bu doon wàllu force la wàllu xëcc ak puus ak nangam. pap waaw mënu ko mënu wala Pape bu dee. mënul lu Pape Ndoye mënul. mënul lu Pape Ndoye mënul. mën na lu mu mënul. Pape war na mën lu mu kon nag tey jii man li ma gis si moom mooy gis naa ni booy bu waane la booy bu mën a bëre la te ragalul da caat daa dafa ragalul waaye xaw a changé ci combat bi mu bañ a jàpp ne moo dàq bëri Pape Ndoye ndax gis naa nu mu bëree Colifay 2 ak yéen jàppante fii wàcc fii man li ma koy digal ci kombaa bi mooy caat euh, yaa ngi bëree yaa ngi bëree ku doy waar. boo gisee yaram bi nii nag nga yaakaar ni ab kii la mbuusu ndox bu toj la déedéet glace la mi ngi bëree ku am doole mi ngi bëree ku mën a bëre mi ngi bëree ku ñeme nag ñeme ba dof sax wax mais nag am na ay faay. am na ay faay yoo ne bu ko booy bi exploité mën na am dara Daouda Thiatou Daouda bu exploité ay faayam mën na am dara mais amul lu mu koy war a jaay ci bëre dama la ko wax tey nag ñu ñëwagul amul lu Pape Thiatou euh, Daouda Fall mën a jaay Pape Ndoye ci bëre waaw Pape Ndoye bokk nañu dàq bëre Fass bokk na ci ñu dàq bëre écurie Fass man maa la loolu tey dafa mën a bëre lool te te ci temps yëpp nag day song day bëre wet day bëre jàppoo te it am na yeneen bëri yoo xamante ni sax doo xam da koy bëre nii rek mu ñëw ci moom kon euh, Daouda joxal cër Papa Ndoye bu baax a baax a baax a baax da nga éviter koronte moom fi mu bëree Coly Faye noonu kor Coly Faye ay ay ay coup euh, mu éviter jël koru Papa Ndoye da ko éviter bu baax a baax a baax ci combat bi mën na yàq làmbam te bu mu waanee na def lu wóor rek waaw na def lu wóor léegi li may wax ci Pape Ndoye moom leen nag laay ñëw wax ci Pape ndoy euh, hmm. mu bañ booy bi booy waaw Pape Ndoye damaa ko booy màgg na bu ko xeeb bu ñëw di bëre moom Pape Ndoye da nga bëri lu wóor da ko jox cër da ko jox cër jox ko limu moom ndax booy bi tamit am na lu mën lu bari boo naagoo booy bi dina daan ba ñibbi doo ko yëg. te booy bi tamit boo bëggee dóor boo bëggee daan Pape faa faaw nga dóor ko xaw ma noo koy xeex moom mais faaw nga xeex ak moom xeex bu normal sinon doo ko gaaw daan ci bapat bu noon bapat ba gannaaw suba aw ma yaakaar ni dina ko gaaw a daan wax ma mënu ko daan de wala dina ko daan du ko daan mais mun na ko bënee gaaw daan Pape Ndoye daa mun bëre dafa am doole dafa am ci ci ci faiblesse yi tey Pape Ndoye bu arbitre ne prip nan la war a mën a aborder caatu Daouda Fall ba daan ko Pape Ndoye rek lañ nekk nii fi waa toll. waaw Pape Ndoye moom la mu doon def du change dara Pape Ndoye dafa offensif su ñëwee moom day bëree moom waree xeex day xeex boo dee am naa yaakaar ne moom mooy attaqué ji su ma juumalee su li ma xam ci moom moom mooy attaqué ji du bàyyi loo fee moom mais booy moom toujours rek na na na ko jéem a nax daan ko jéem a nax euh, caatu Daouda Fall. noonu. moom pour mu pour mu daan Pape Ndoye ay ay ay. Pape Ndoye pour mu daan caat. ah Pape mu daan caat dafa moom laa la wax. mu war a mën a aborder combat mooy Pape Ndoye tey bu nee salaamaaleykum maaleykum salaam Pape Ndoye mooy avancé. hostilité yëpp Pape Ndoye dina ko jël mooy attaqué ji mooy bëre ji loolu moom dama la mooy attaqué ji mooy bëre mooy xeex naam mënul xeex mais mooy xeex mooy attaqué mooy bëre ji. Pape loxo bi diis na mais caat daal nag gis ma gis moom muy xeexu kor ah Pape rek waa Pape Ndoye xeexam yëpp Pape Ndoye loolu la am bu la koree moom day dóor uppercut dóor boo kiiwul mu jàpp sa ngeen mu jéem a bëtt la bipp la def la ay kiiwam ba am dara quoi bu dee Pape Ndoye la lay def. Thiatou Daouda Fall boo ko ngemboon tey taxaw ci digg géew bi mu war a bëree ak Pape Ndoye nan lay aborder combat bi ba am ci. mooy mu respecte ko na respecté Pape Ndoye ndax Pape Ndoye la wax naa la sànq ba na ma koy waxaat xam li ñu wax ñëpp ñu koy waxaat mooy dama na ko respecté euh, na bëreeg moom bëre boo xamante nii nekk bëre waane na wooral na wooral na ñëw bëri bëri bu wóor bëre mag na ko wooral bëri moom bëri boo xamante ne nii luy jeexal làmbale rek action bu gaaw mu daan kon sinon Pape Ndoye moom bu jàppee nga jàpp ndox gaaw daan caa dara fal bu jàppee Pape Ndoye jàpp comme ça euh, flexion yooyu muy def noonu ah, dina bu ko ci daan dina ma jaaxal nag waaw. dox ci kaw Pape Ndoye wala day taxaw. day taxaw day taxaw lawaatoog moom naxanteeg moom dóor ko Pape Ndoye bu fay mu jiwaat loog moom mënu laa ko jox aspiré ko door ko évité ko dóor ko di ko tooñ di ko tooñ Pape Ndoye mamm il faut Pape Ndoye mamm mu jiwaat loog moom def action bu gaaw moo xam da koy sandi moo xam da koy taf ko moo xam lu muy def quoi mais vite fait lay nekk quoi vite fait lay nekk loo xamante ne vite fait lay nekk mais bu ko defee doo xamante nii ay dama lay kal moom moom lonk la fay def ni ne non doo ko ci gaaw daal waaw Pape Ndoye daa mun bëree booy. mu samp jaaga ne Pape Ndoye kaay ñu rayante tey est-ce que dina man moom rayante laay bañ a dégg ci làmb affaire guerrier gis nga guerrier ah da koy matale mooy guerrier da nga koy nëbb ci biir sa biir sa biir nga koy nëbb mooy mën nga jël coup boo xamante ni doo wane jël naa coup te su ma la jekkoo dama lay rey loolu man loolu laa gëm mais samp jaaga dóoral ma dóor affaire yooyu noonu coup bi lay daaneel coup bu ndaw bu la daalee fii balaa ngaa baaxat yàllaa xam wala sa bët ay coup yoo xam ne da lay day yàq sa làmb quoi day yàq sa làmb. mais ñoom ñaar seen état de forme yi nan nga gisee ñoom. waaw xam caa daara forme boo gisee da gis athlète macha allah macha macha allah li moom bu mu yéeg bu mu ko yàqamte mooy masse bi fi mu nekk noonu mi ngi baax mi ngi ñëw nànk nànk rek chaque deux ans mu yokk benn trois kilos yu demee noonu rek baax. lu baax na ko mais macha allah moom. forme bi ñu bëree bëri waaw day nax ñu bëri. nax nee naa Pape Ndoye dafa am doole Pape Ndoye daa mën bëree Pape Ndoye daa ñeme benn faay la am muy xeex bi baaxul loolu daal mooy faayam man li koy wax daal mooy sa waay euh, bu dee Pape Ndoye na dox ci kaw waa ji loo booy lu mu gëm ñu jàppante ñu bëree mu jëm ko nax daan ko bu dee bu dee bu dee caatu daara faal la. na ko tooñ cokkaas ko jëm bu mujj mujj wàll moom def ko action benn action lay nekk rek waaw benn action mu daanu wala mu daw wër ko ndomb man loolu laa gëm ci combat mais góoma nag comme ni mu bëre Coly moom man góoma ci combat bi mu jëm ni euh, samedi. séntu ko doon combat bu gaaw wala combat bu. ah dina intense moom combat bu bu intense nekk mais du yàgg combat moom maa maa la wax du yàgg duñ bëri lu yàgg de maa ko wax. maa la wax lu yàgg Pape ndooy Daara fa duñ bëri lu yàgg de waaw. damay mujjee ci ci ci Pape ba tey fa la ñuy tëjee mooy bi ngeen nekkee yéen ñaar écurie Fass fekkante ngeen fa wala bi ngay dem ngeen fa kii wala. non Pape Ndoye moom maa ko yor moom sama sama rakk la moom. dëgg yàlla bi muy dugg ci làmb ba ni ma ko fa bàyyee moom waaw bëgg affaire bi boo gisee jàppul dara muy dara benn da nga ko doon tooñ sax benn genre dof nga ko doon tooñee ko xamante ne yëgul dara quoi moom. wax dëgg yàlla te mu nekk booy bu baax nag booy bu yarul la wax dëgg yàlla waaw comme côté bee tamit booy bee tamit li ñu gisee bëriwul mais fu ñu gisee yëpp cër bu mat sëkk sëkk sëkk la ma jox muy caatu daara faal aussi ah waaw xale yi moom wax dëgg yàlla moom ah maa ñoom daal yàlla na yàlla gën a dooli sutura si euh, respect bi am na cër bi am na quoi